ku mel ne Idriss Seck ñoom man gis naa nag Thiès Macky Sall bàyyee na fépp waa parti réew mi mhm. léegi nag ñoom itam ay transhumants lañ boo ah. xoolee commune baak ville baak yëpp cees mhm. Idriss Seck la ko Macky Sall bàyyee mhm. léegi nag est-ce que ñoom itam ah. transhumé gi ñu def jëm ci Macky Sall waa Thiès dinañ ci ànd ak ñoom wala waa Thiès dañ leen di sanctionné loolu lépp maanaam mi ngi ci suñu kanam